yow xanaa boo dóoree nit ba mu nekk ci diggante dund ak dee la moindre mooy nga laaj ndax mu ngi tane. Jojo xanaa waxuma yow. loo may multiplier par zéro te nga xam li nga def bu baax. doom de di wutal boppam ndey di wutal boppam baay waaye kilifa dina yàq way doomam. maa ngi doog a xam lu tax nga jàppe ma na Mor sa fabeeri ci kër gi te defoon naa ne de li ngeen ma teg ci kër gi fii ci sama diggante ak sumbulu du ngeen mës a yëkkati lu ko gën a dis teg ma ko ndey Kumba soppante leen te yàlla tax